ci digg Dubaay ci digg naar yi ci digg boroom xam-xam yi ci digg milliardaires yi jërë ngeen jëf mbokki internet Allô Sénégal sëriñ Abdourahmane Nourou ni lañ leen indilaatal gis ngeen déco bi gis ngeen ni mu yàññee bu mu leen bett ndax limousine la ñu jël bu cher teg ko ci loxoog sëriñ bi ne ko faw ngay doxantoog moom ci biir Dubaay fu mu lay foo bëgg a dem mu yóbbu la lenn ma ko may ngir mooy xam-xam waaye nag lenn ma ko may muy faj mu wér ñaan mu nangu nga jëflanteeg ay naar ay milliardaire ndax naar kenn ko nax ci xam-xam jàng nañu xam nañu di liggéey ci asraar lu wér waaye nga dem ba jommal leen ci kon yaakaar naa li nga yor du ay caaxaan Sénégal nañu gën xam li ñu yor te mooy xam-xam Sénégal nañu gën a xam li ñu yor mooy sëriñ Abdourahmane Nourou Daarayni tey dañoo fas yéene génn doxantoog moom wër dëkk bi ci biir limousine bi ci biir émirat arab waaye nag ci biir réew dëkk bi gën a cher ci biir réewum arab nee naa léegi néew na nga dox ci dëkk bi ñu ne dajeek noir waxuma waxuma sax doo dajeek ma noir naa noir biir Dubaay mais ci biir fi ñu ne ci biir Dubaay sëriñ bi dañoo bëgg a waxtaan ak sa jëmm ji ci actualité du ci ñàkk faw rek nga cof ci ku ci mel ni Ousmane Sonko xam nañ ko ci réew mi nekk chef de l'opposition waaw dëgg la yàgg na ci def na ci ay preuve def na ci lu ne ñu téye ko mu ne ci guddi gu bët setagul sénégalais yi ne tekk ana jeunesse bi kenn yeewoogul ñu jàpp di tëj ndax faw rek mu génn àddu ci ndax ay kàddoom ça pèse te dañ koy déglu sëriñ bi dina wax ci ujje politique gi Macky sàll Ousmane Sonko Idrissa Seck Pape Djibril Fall ñëpp dinañ cof dinañ wax ci moom ndax sëriñ bi dafa téye actualité téye réew mi showbiz sax dañu ciy waxtaan ndax sëriñ bi sëriñu àdduna la sëriñu asraar la dafay bàyyi xel lu ne ku ne da koy dikkal di ko ñaanloo waaye ku ne dafay sukk ci ay tànkam ngir am ngir am barke. coowal showbiz bi sekk Wally di Sidi Diop Banaya coow li jug na ku nekk a ngi gaaruwaale sa moroom sëriñ bi faw nga nuyoo ñu daal di jàll ci waxtaan bi balaa boobu dañ koy bàyyi moom sëriñ Abdourahmane Nourou ni mu nuyu mbokki internet yi xam ne ñoo koy seetaan sëriñ bi bismillah. yallaahu yaasal xarsi wal kursi yi bi sirrika al qudsi salli salaatan bi falaahin tatmanu li abadan ladayka yaa muhayminu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala mbokki addina mbokki Sénégal mbokki Dubaay mbokki alu senegal Mouhamadul Amin maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di siyaare itam ma ñaan mii nga xam ni moom nga àndal moom it muy liggéey liggéey bu am solo mm-hmm. ci image yi ak ci mm-hmm. vidéo yi mm-hmm. di leen jéggulu di siyaare itam sëñ Mouhamad mii nga xam ni moom la ñu àndal ak itam soxna su baax si nga xam ni moom la àndal moom itam di jéggulu itam coono yi leen di teg boobu ba tey ndax lu toll ni am réew ñu jële leen fa nit ñu bari soxla leen ngeen dagg yitte yëpp ñëw ànd ak ñun loolu rëy na ci ñun lool tey nag ñoo ngi yàlla bu baax a baax fa ndax umpale leen ni ñoo ngi ci biir oto bii ñuy wax limousine. Mm-hmm. di fi def suñu vidéo bi nga xam ne moom ngeen sàkku ci ñun ngir am ko ñun. Mm-hmm. muy loo xam ne taraanga ju rëy rëy rëy la. Mm-hmm. jëf ji moo ñu yéem waaye matériel bi yéemuñu. ndax daanaka xam-xam moo ëpp solo am-am. muy loo xam ne lu doy waar la lu yéeme la bu ñu la waxoon jëmmi woto bii rek fi mu toll ci alal. ak itam euh, diir bi ñu koy yor. muy ba ñu fi nekkee ba ni ñu fi jógewaatee mhm. li mu doon ci alal buñ la ko waxoon sax boo muy tuut mën na laa jële kaw lool wala mën na laa jaaxal mhm. waaye lépp itam li ko waral rek mooy jëmm yi nga xam ne dañoo jëflante ak ñun ci xam-xam mhm. te ci suñ borom lool gis ci seen bopp moo waral lii ak leneen loo xam ni gisu leen ko déggu leen ko fa tabaarakallaa xam naa foofu laa yem ci wàllum nuyoo bi macha allah fa la ñuy jàll man tàmbali waxtaan bi ndax eh, wax naa ko du benn du ñaar te duma ci tàyyi yow laa mës defal émission en direct nga bett ma seetal ma ba sax dama tëb ne la sëñ bi doy na ñi ma xam dëgg woo ma téléphone ne ma xam nga dëgg dëgg ni sëriñ bi gis na la sëñ bi seet yàgg ngaa wax ni naw lan tooceeg nit ci kaw suuf ndax danga koo mën damay dëggal loolu sëñ bi Mouhamadul mhm. sunu borom daf ma ko man loo man rek nag nekkuma di ko def ndax man maay kenn ki gën a xeebu ci seen biir. Mm-hmm. yéen réew mépp yéen mboolem rek koo xam ni yaa ngi may dégg. Mm-hmm. jàpp leen ni kii di wax kenn la ci seen biir ki ci gën a xeebu. Mm-hmm. moo nekk di wax du ma ndamu ndax Iblis ku ne xam na ni la ko jëlee ca palaas yu rëy ya mu nekkoon. indi ko ca gën gaa suufew daraja. ku ne xam na ni ak rëy rek la. kon sañu ñoo rëy du ma wax ni daa daanaka mën na maa wax ni ñu bëree bëree bëri. Mhm. ci ñoo xam ne tey ay kàngam la ñu ci seet. Mhm. la ñu ca xam yàlla mi ngi leen jaarale ci suñu loxo yi. ndeysaan te loolu du ay wax rek ngir bëgg ku la gëm. Mhm. waaye luñ mën a yëkkati suñuy loxo la teg ko ci ay jëmm. te ay jëmm itam seede nañu ko ci sa kanam. fa tabaarakallah moo tax ñu ngi sant yàlla. xilmul asraar bi nga xam ni suñ borom dafa ñu ko jagleel mu nekk ci ñun. ñu jàng ko nag. waaw ah, duñu wax ni dañ ko doon fenn wala dañ koo jëlee fenn donte mm. suñuy waajur itam ci la ñu nekkoon xam nañ ko bu baax. bari na lu ñu ci xamal. Mm. waaye fa tabaarakallah xam naa ni buñ ñëwoon dinañ gis ci ñun loo xam ni ñoom sax bàyyiwuñ ko woon ci ñun. Mm-hmm. loolu nag jàngi moo ko waral. muy xam-xam bu doy waar bu yéeme. Mm-hmm. ndax ngir nga doon sëriñub asraar. loolu dafa jafe. Mm-hmm. ci doomu aadama. xam-xam yi war a daje ci day bari. da nga xam wàllum xilmu nujuum di nga xam wàllum xilmul xadat di xam wàllum xilmul yeneen yoo xam ne sax mënoo ko wax fii xilmul xawaatim lu mel ni murabbax lu mel ni xawaatimu musallasul xasaali mhm. lu mel ni yeneen ak yeneen yoo xam ni maanaam ay teggin may wut nit di ko tudd mhm. la ndax boroom xam-xam yi dañu ko warmal mhm. xam-xam boobu nit du ko xam ci àddina di tële seet moo tax seet bu fekkoon ni euh, dama mel ni ñenn ñi damay wax ni maa ko daq ci àddina bépp waaye li ma mën a wax daal mooy bari nañu ko man lool ñoo leen ko jàngal ñoo xam ni ay seetkat lañ ay kilifa yu mag lañ bu njaaxlee ci ñun la ñuy ñëw mhm. ñu seetal leen mhm. bari na ñoo xam ni it ragal nañoo ñëw ci ñun di ñu mhm. seetloo ngir xam na ni lu ñu eh. leen wax rek daañu ko gis ah, te ñun moom nañu ko gisee lañu koy waxee mu jeex fa tabaarakallah seet moom noonu la noonu laa koy defee bari na xeet nag waaw bari na am na boo xam ne sa loxo bii rek laay gis nga foto ko yónnee ma ko ma wax la li weesu ci wax la li ñëwagul wax la li ngay dund am na boo xam ne sa tur ak sa turu yaay nga may wax. Mhm. ma wax la li ngay dund lépp wax la say mbir fa nga jëm. Mhm. am na seet goo xam ni damay gisante ak yow tey doo ma xam duma la xam jurut nga may wax dara ci sa bopp mooy seetu rawxaan googu seet bis bu set juróomi nit rek laa koy defal kooku dinaa la wax ci yow mhm. ba wax la loo xamante ne nii da nga gëm ci sa bopp ne yow nit moo ma xam-xam la ñëw wax ma say mbir. fa tabaarakallaa waaye sëñ bi ci loolu euh, da ngay liggéey bayre dëgg la waaye li mooy fii ñu ne ci Dubaay ñoo xamante ni mosoo leen a bët ñoo xamante ni mosuñ laa xam ñoo xamante ni xamuñu woon ni sax ku mel nii am na gis la pour une première fois sopp la bay daw di ñaan ay nataal ay photo ci sa jëmm ji nit ki boo nee ko dama lay defal bay rek ubbeeku war na koo gëm sëñ bi. waaw Mouhamadul Amine sunu xeetu xam yoo xam ni. Mm-hmm. amul benn doomu aadama boo koy defal te xoli nit ñëpp duñ ko sopp. dëgg la xulubul xalaaiq secret bu màgg a màgg màgg la ci wàllum ñaan. te yàgg nañ cee waxtaan. yàgg nañu cee waxtaan fa réewum Sénégal. waaw kooku mën naa laa wax président boo xam ne ci suñu réew ma Sénégal. yoroon na ko. ka nga xam ni moo ko ko defal kilifa googu. Mhm. mi ngi dund bu ma ko tuddoon xay na du ko gënal. Mhm. moo tax du ma ko mën a wax. waaye moo ko defaraloon secret boobu fa la jaare nit ñi bëgg ko ba jox ko réew ma. sa secret boobu mi ngi ci man te bokk na ci yi gën a tuuti ci samay bagages. waaw loolu lu rëy ci man. bokk na ci li gën a tuuti ci samay bagaas te lii may wax ak yow ak yow nii. Mhm. lu jàppandi la fi man. loo xam ni doonul ay wax rek. comme ni ko nit ñi di defee. Mm-hmm. déedéet mm-hmm. ndax bokk na ci li waral sunu ñëw tey fii ci Dubai. waaw booy fàttaliku ca sunu vidéo yi ca ginnaaw. Mm-hmm. waxoon naa la ca réew yu mag ya. muy réew yu Dubai dafa am kóllëre yoo xam ne dañ ko faa am. ñu sàkk sunu ñëw fa ngir lëggéeyal leen ci wàllum ñaan yàlla. ma ne la woon sàkkuwu leen ko sax maa leen nii dinaa leen fa yóbbu bu may dem. ndax wax boo ko waxee ay junni junni nit di la dégg. te ñooñee di la dégg am na ca ñoo xam ne ñu am xel lañ. am na ca ñoo xam ne nii ba ay intellectuel lañ. am na ci ñoo xam ne dañuy topp doomu aadama bi mm. di la seetlu mm. loolu moo waral na ma ko waxee woon ma defee ko noonu ba jotaay bi am mooy man suñ borom rek moo man lu mu def lu mu wax rek def ko waaye ñun lu ñu wax daañu ko jéem insha allahu rabbi bayre yemuñu ci ak kenn bayre yi nag dafa am yoo xam ni bayre yi góor la am bayre yoo xam ne bayre jigéen la am mm. bayre yoo xam ne bayre nit ñi la mm-hmm. dañ lay bëgg lool waaye nag doo yor dara am yoo xam ne nit ñi dañ lay bëgg attana jël seen alal jox la ko. Mhm. Ah, dinaa leen leeral foofu itam. loo xam ne umpoon na mbindeef yu bari. mu mhm. ñaanu xaalis am na. waaye li gën a bari ñu koy jaawaleeg ñaanu xaalis. doonul ñaanu xaalis. mooy bayre bayre la. xam nga Mouhamadul Amine tey jii. Mhm. Ah, sëñ Abdourahman mën na laa sopp bëgg la lool. ba jël milliard may la ko. waaw lan moo waral may gim la ko may. sopp gim la sopp ak bëgg gim la bëgg mahabba gi ak mawadda gi. ak rahma gi moo ko waral. léegi nit ki da ngay da ngay ñaanlu ngir suñ borom defal la bayre ci xolu nit ñi. nit ñi bëgg la lool. Mm-hmm. ab yónnente saa bu ko sama borom yónnee ci nit ñi. Mm-hmm. la muy njëkk def ci xoli nit ñi ko war a topp mooy dañu koy bëgg. waliyu itam saa bu ñëwee ñu war a jariñ ci moom dañ koy bëgg. kon nit ñi lay jox seen alal itam dañu lay bëgg ba noppi. Mm-hmm. kon dee leen wuti bayre foofu sax laay waxee wax joo xam ni Serigne Touba xaada lahu laahu maxtaara lahu moo ko waxoon moo ni woon dee leen wute bay bayra ndax léeg-léeg nit nekk fi ba jóge fi ñu jàpp ñuy defar ga daa des te fekk ñàkk bayra rek la. moo ko waral. waaye sëñ bi am na itam loo xamante ni faw sama mbokk moodu moodu yi seede ma ci mooy jëflante yi nga xamante ni yaa ngi koy jëflante ak ñoom ñu ci bari fas yéene nañoo ñëw ci màggal gi te sa jëmm ji la ko suñu borom jaarale te yaa ngi koy def ci wàllum këyit. nit soxla këyit toog ay at yu bari mënu koo am jëflanteeg yow ci ay fan yu néew visa bi jàppandi wala sax këyit yee jàppandi. loolu moom yow seede nga ci. waaw wax nga ko si wax sax waaye seede nga ci. waaw ndax man du ma jël seede yu sore sore sore sore te nga ne fi. Mhm. booy seetlu saa bu ñu dee wax bu ñu dee def émission. Mhm. dinaa jël benn seede ci yow. Mhm. ndax ñeneen nit ñi duñ ko duñ ko xam. man ngaa wax. fekk li ngay wax nit ñi dañu jàpp ne ay waxandoo la ndax dafa mhm. bari lool mhm. ci jamono ji waaye man seede yëpp ci yow laa koy laa koy jël kuy seetaan yi nga ko gis mhm. bu yàggul jox nga ma sa passeport ni ma mësoo tukki ci émission ci émission matul ñaari weer ma ni la matul weer ma téye ko wax la li ma lay wax yàlla def ni fii ma nga toog di wax ak man yaa defe naa sori nga Sénégal lool waaw te noonu itam lañ fi àndaate dem ca réew yi tugal ya gën a sori daañu dem feneen ak feneen ndax bari ñi ngi sàkku ci ñun xalwatu yii ak liggéey yu am solo yii ñuy liggéey fii ci ñoom ndax lu baax ñëpp ko bëgg boo gisee ñu bari ñemeetuñu sëriñ mhm. bëgg bañuñu sëriñ ñàkkuñu ko gëm waaye dañ leen a naxa naxa nax naxa nax dóor leen a dóor a dóor a dóor ba wóolootuñu kenn mhm. fa tabaarakallah liggéey boobu nag moo tax ma ñëw def ci bëgg cee def lu ama ama am solo loo xam ne mhm. yëgoon nga ni bari na ñoo xam ne tey buñ gëmaatee ñaan yàlla maa tax dëgg la suñ jëmm ji li muy xeebu xeebu at yi li muy néew néew bari na kilifa yoo xam ne tey buñ toogaatee di ñaan lu yàlla sama jëmm ji moo tax te loolu du dara lu may sellal gi ak itam teg koy teg ci yoon. sama liggéey duma ko caaxaani mukk wàllum kayit yemuma ci ak mindeef yemuma ci akub sëriñ li ko dale ci kayit gi ñuy wax euh, maanaam kayitub juddu. ah. ak réew moo mën a nekk. waaw visa ak kayit gum mën a doon. bu ma la joxee li ma lay jox man sëñ Abdourahman nga defe ko ni ma la ko waxee te juumoo ci yàlla mii dogal. mooy dogal ci xelum ki nga xam ne moo war a defar say kayit. waaw ñu ne ko jëlal kayiti diw mee nga defar ko ak làkk wu mën a dégg. dafa am lu ñuy wax irsaalul haatif. Uh-huh. man na damaa toog fii def ko nit. irsaalul haatif loolu xam-xam dëgg moo koy def. man na nga ni fii laa koy doog a dégg. fa laa irsaalul haatif mooy téléphone baatin. waaw téléphone baatin bu ma gisee ku yéem tubaab bi ci téléphone danga ma yéem xam nga ñëpp nangu nañu ni tubaab bi defar na appel vidéo defar na appel normal. waaw loolu de xanaa kenn weddeetu ko fi mu ne. déedéet kenn weddu ko. te léeg-léeg nga gis kuy weddi téléphone baatin. te moo ne téléphone baatin moo gën a wér téléphone saaxir. irsaalul haatif Mouhamadul Amin tey bu ma ko defee nit ku man a doon ci àddina dama koy wax li ma ko bëgg a wax lépp buy tëdd di nelaw di ko gis na ma ko ko waxee. fa tabaarakallah te bu xëyee day jóge ci loola bu ko deful benn aaju ju faju du ko am. maanaam nit ki mën nga mën na mën na la ñaanloo nekk ca réew ya gën a sori. ngeen ñàkk a déggante nga am loo ko dee ci ay nelawam ne ko boo yeewoo defal nangam sangam nangam te bu jeewoo day dem defi ji kilifaam ngam amal jafe-jafe. waaw wala soxna sa nga xam ne moom la bëgg. waaw wala ka ko war a defaral ay këyitam. waaw wala ka muy sàkku ci moom mu jafe. waaw kooka laay def irsaalul haatif tëdd ba guddi lay def ñu ne ko diw ak diw mii na nga ko defal nangam ak nangam ak nangam ak nangam. loolu bu loolu bu dikkee dikkaat ci moom nu mën a def dana ko def tawxan aw karxan loolu Mouhamadul Amin kaw xam-xam bu bu kawe la doonut itam lu lu may fawe ndax dama koo jàngee fa ma ko war a jànge uh-huh. ñu tegal ma ci ay sart waaye nag doomu aadama moo gën a màgg lépp ndax ku ne xam na ni teraanga yépp suñu borom daf koo def ngir doomu aadama uh-huh. bu gisee lu ko jar rek dañ koy def macha allah waaye leneen loo xamante ni jar na ko mooy faw sëriñ bi nga génnewaat xalima yi faw sëriñ bi nga génnewaat fas yi jat yi ndax no waxoon nga ma nopp jaaroo ci benn yoon doo ci jaar ñaari yoon téeméeri yoon nga yor ci nopp te boo ci dóor dafay dal. Mouhamadul Amine bu doon Sénégal dinaa la génneel mboolem xeeti fas yi. Mhm. génneel la mboolem xeeti jaaro yi ak mboolem xeeti ndomba yi. yi may liggéey tañ xame ma ko. waaye ku ne xam ne ni réew mii ñoom dañu fi tere yu yoo xam ni day dëppook yooyu noonu ay fas yu mel noonu li ko waral mooy dañu umpule lenn ci xam-xam yooyu am na suñ xam-xam yoo xam ne xam-xami tegtal la mhm. ñun waa Sénégal ñoo ko xam mhm. te boo ko defewul foofee ca ca boo ko defee réew ma loo fa wax lu du loolu dañuy yaakaar ne doo amoo xam-xam mhm. moo tax ma ko fay gën a yaatal léeg-léeg sax nit ñëw ma jox ko ak fas wala léeg-léeg nit ñëw ma jox ko ak ndomba ngir dalal xelam la waaye lay saafara aajoom ci sama làmmin wii lay jóge eh? ci sama kurus laa koy liggéey ci sama xam-xamu xawaatim laa koy liggéey fii asraar gu set wécc moo fi dox. waaye daray sixru nanguwuñ mu dox fi lu jëm ci njabar. Mhm. Eh, moo tax ñu bëree bëri ñu ngi leen naan ay nit yàlla ak léeg-léeg sax fii laay toog gis ay jigéen ak ñu ne. Mhm. ñoo xam ne seen tur sax mënuñu ko bind. toog naan ay ay ay nit yàlla la ay ñaankati yàlla ak. yow ngay mujj sax sëriñ bi la bi nga li nga xam ne sama borom def na ko muy sayxul asraar. Mhm. da ngay mujj am ci kersa ruus ci. bu dul woon xam gi ngay xam ni nit ki liggéeyam. Mhm. faaw am ñu ko ci bëgg am ñu ko ci bañ doo nangoo génneti mukk wala doo ko nangoo defeti ndeysaan moo tax nañu jàngiwaat xam-xam. Mhm. rëy ay yére. Mhm. ak rëy ay wax. ak rëy ay kàllaama. ak bari alal sore nag xam am xam-xam. dëgg la. dëgg la xam-xam nekkul ci ay yére nekkul ci ab bërëb waxoon naa leen ko ca àll ba ma ni leen xam-xam nekkul ci kër nekkul ci àll nekkul ci col gu riis nekkul ci col gu rafle fii may wax ak yow nii réew mii ñu ñëw. Mhm. ànd fi ak ñun yéen ñii tabaarakalla équipe bépp. waaw ku ne xam na ne alal ju bari moo koy def. ndeysaan fi mu ne nii ñu toog di wax rek fii ñu toog limousine bii ñu toog. waaw tey di dem. waaw Mouhamadul Amin alal ju baree bari la. waaw hôtel yi xam ne moom la ñu dal boobu ba tey mhm. alal ju baree bari la. Mhm. su fekkoon ne man addina laay wër wala leneen ñor ma wala ak tarbiya wala ak tarqiya nekkul ci man. ah kon defe naa da ngeen ma gis ci weneen melo wudul nii. waaye na dara mënuma soppi dara tiitalu ma. waaye dara itam yëngalu ma. sëñ bi am na loo xamante ni tamit euh, bëggoon naa ñu waxtaan ci gannaaw loolu lépp lu sonal sénégalais la góor yàlla yi ñu bari muy wàllum néew kàttan sëñ bi dafa am ñoo xamante ni ñi ngi ciy jooy te dem nañ fu ne dajeeguñu ak sa jëmm ji nga jëflanteeg ñoom ci wàllum néew kàttan moo tax. maa ngi ciy dimbali ñu baree bare bari dinaa am lu ma leeral ci wàllum nopp gi ma doon wax léegi gi nga ma doon laaj. Euh, Mouhamadul Amin bu ma kenn indil koo xam ni. jàpp nga ni boo waxtaanee ak moom mu bëgg la. ndax lan. daal loolu nanguma ko. bu ma kenn indil koo xam ne jàpp nga ni boo waxtaanee ak moom. ci sam xel. waaw mu bëgg la. maam Cheikh Ibrahima Fall daf daa wax ni. maanaam na jafe rek yow. Cheikh Ibrahima Fall daf daa wax ni. mooy. daf daa wax ni. Mhm. loo xam ni liggéey mën na ma koo may rus naa koo ñaan. Mhm. koo xam ne boo waxee ak moom mu nangul la bu ma ko fi kenn indil. loo xam ni tëna la. dem nga ci sëriñ si mu tëla waaw wala jàpp nga ni lii moom boo ko génnee rek coow am na wala lii lu mënta nekk la ci àddina mhm. mi ngi mel ni boole sawara ak ndox ba nga xam ne lii jommal na la jaaxal na la ku mel noonu laa soxla eh, fa tabaarakallah itam maa ngi wax nit ñi ñëw ci man di ma loo di ma indil ayi bi sëriñ si nañ ko bàyyi ñi lay boole daal di sëriñ sàngam lekkal na ma nangam sëriñ sàngam lekkal na ma nangam gëm naa ko te xam naa ni ñu ngi leen di nax bu baax mhm. waaye nañ ma bàyyi wax yooyu ndax man bëgguma xam ayi bi nit ñi mhm. bëgguma koo xam. ndeysaan ndeysaan. te xam naa ñiy tappale jépp laa xam. waaw bu ma la doon wàññil boroom xam-xam yi. ci sama loxo yii fukk yi baaraam yi du mat man xam naa loolu bu baax nañ ma dimbali ngir yàlla rek ku ñëw. Mhm. wax ma sa soxla. Mhm. koo xam ne dangaa ñëw di ko seetloo sa bopp ana ana kooku noo koy waxee maanam sa jaar-jaar. waaw xam naa lépp ku ñëw ci man bu ma amuloon lu ma ci seet fi nga jaar fépp ma tuddal la ko waaye du ko def. ndax wane karaama ak wane baatin ci ñenn wàllu yàlla yi. Mhm. mi ngi mel ni jigéen juy gis mbaax. Mhm. dañ ciy am kersa. maanaam fa tabaarakallaa euh, maa ngi wax itam ni kulata mhm. nga xam ne mënoo ci dara. nga xam jigéen nga moo xam góor nga. nga bëgg nit ki bëgg la ba du am ceew sago. waaw fa tabaarakallaa indil ko sa Abdourahman bu yàlla defee ma def ci riyaada bi ma ciy def. ci xawaatim bi ma la doon wax fa yee muy kar dafa ba yeneen yi nga xam ni moo gën a kawe waaye du ma ko tudd. moo làqu fa tabaarakallaa bu ma ko ci jaaralee. incha allahu rabbi sama borom boole leen. yàlla nag daf ma xamal xam-xam boo xam ni. waaw li ma koy wax bari na lool. ci ëpp lu may boolee diggante yi. bari na sëy yu naroon a jaxasoo. waaw naroon a yàqu. Mhm. bu bu dee dox ba tey jii ba ak njaboot di ca juddu. Mhm. nañ ma ko sante alhamdulilah. bari na diggante yu am ab sëy am ci bu amee ba tey jii. waaw nañ ma ko sante te lépp maa ngi ko defaree ca sama tomb yooyu nga xam ne moom nga yàgg dégg ma di ko wax. tomb doo ko dégg ci kenn mu koy wax na ku dul man tomb yooyu moo sut ci lu ñuy wax ci ab ci ci asraar fa tabaarakallah kattan googu nga ma laaj nag. waaw defe naa balaa may ñëw di waxtaan ak yow nii mu liggéey boobu laa jóge mhm. ci laata may wax ak yow nii. ci liggéeyub kattan laa mujj la laa mujj jóge nii. Mhm. fii may wax ak yow. muy loo xamee seeti nii kenn kenn laam laameetul ni ma ci mel. Mhm. tabaarkalla mag ñi sax. waaw laa ci gën a soxla ci gone yi. ndax gone léeg lekk nga defal ko dara mu mel noo xam ne ci kàttan. waaw day jàpp ni sax wala dañuy jàpp ni stress moo ko jàppoon rek. wala xale la war naa mën am kàttan gii. waaw waaye mag mi nga xam ne dem na ba xam ne moom mënatul dara ci boppam. Mm-hmm. bu ñëwee li ma koy defal day mel ni waxambaane wuy door a dugg maanaam atum ñaar fukk ak juróom. dina am ca kattan loo xam ne bu ko sama borom mayoon soxna yu dul jeex ci ab lim mu mën a maanaam kenn ku ne dina la mën a jox sa àq mhm. ndax ay wax dañ koy warmal fa tabaarakallah macha allah kenn ku ne dana la mën a jox sa àq mhm. te kenn du mer insha allah macha allah fa tabaarakallah ndax eh, sëriñ Abdourahmane Nourou Daarayni borom xam-xam la nitu yàlla la waaye bul mu la yéem nga ni maa ngi koy gis ci hôtel yi gën a cher biir Dubaay bu mu la yéem nga ni maa ngi koy gis ci oto yi gën a cher biir Dubaay nga ni yoruma bu ma ko ñaanloo déedéet sëriñ Abdourahman ki am milliard ki am million ak sax kii toltolaan la yemale ndax nee na li ma yor a gën a cher lépp te mooy xam-xam yàgg naa dégg mu koy wax waaye bi ma gisee mu jëfe ko laa gën a jommi ci laa ko gën a gëm sëriñ Abdourahman opposant bu toll ni Ousmane Sonko ñu koy tamti tamtee di ko pamti pamtee tey këram buy wuy ji sax tribunal dañ koy yenu dugal ci oto yóbbu Casamance ñu jóge na fa doon ñëw Dakar ñu yenn dugal ci oto sénégalais yi naan ay test lañu jàpp ne ko tëll yóbbu prison yenn yóbbu prison déet une semaine ñu yenn yóbbu hôpital yenn waat yóbbuwaat prison te situation mi ngi gën a délicat mi ngi gën a critique ay soxnaam sax dem nañ ba génn di woote ndimbal te luñ mësta gis sëñ bi Ousmane Sonko gu mel noonu ñu def ko loolu lan nga ci gis laataa may ñëw ci jeunesse bi nga xamante nee nañ tekk tekkaaral suñ dina dimbali Ousmane Sonko ba mu génn ci kaso boobu mu nekk. loolu war nañ ma ko gis naa ko wax naa ko. waaw. dama ne sunu borom. dana dimbali Ousmane Sonko. ba mu génn ba mu génn ci kaso boobu mu nekk. yàlla dana ko gé dana ko génne ci sijnu boobu sijnu bi mu nekk. tey itam est-ce que sénégalais yi bëgguñu sax. est-ce que xam nga ne sénégalais yi bëgguñu suba suba suba ki ne Ousmane Sonko génnal bëggeewuñ ko noonu bëgg nañ ñoom kenn ku ne gis ci sa bopp maanaam boo leen mënee digal sarax wala nga mën leen a def gis def loolu loo xamante ni ñoom sénégalais dinañ xam ne participer nañ ci génnuk Ousmane sonk loolu itam lu may lu may wax la. ndax sawar naa ci lool. waaw ndax ku ne xam na ni ab dogal bu dee bu dee dina soppeeku. Mhm. ci wax yi ki nga xam ni moo ñu indil diine ji ñuy topp. waaw muy sallallahu alayhi wa sallam bu doon ab sarax mm. dina bu doon dogal dina soppeeku la koy soppi ab sarax la macha allah fa tabaarakallah amul lu mënta am mm-hmm. buñ ko awee ci sarax mais saraxi Ousmane Sonko saraxi Ousmane Sonko du ma ko wax ci télé ñëpp di ko dégg ah waaye bu fekkee féeti nii jaar nañ ko fan ko war a jaar waxee ko nañu ko war a waxee danaa wax la nga xam ne moom laa ca war a wax fa tabaarakallah mm-hmm. te sarax yooyu mënuñu ko koo defal lu dul dafa am la mbëgg Mamadou Amine nit ki. lu ko mën a dal fitna ju mën a doon moo xam dañ koo tëj moo xam dafa feebar moo xam dafa nekk ci ay jafe-jafe. Mhm. am na sarax bu ko mën a génne ca loola maanaam ci bu gaaw a gaaw a gaaw. ci bu wóor wóor. maanaam ku ko yittewoo tey bu ñëwee nga wax ko wala ngeen jox ngeen waxtaan ba gis sarax bi nga xamante ni moom moom moo baax ci réew mi pour Ousmane sonk fa tabaarkàlla du wax kenn ni ñëwal ci man loolu du ko def waaye daal man xam naa lu baree bari ci mbir yooyu. tey duma woo kenn ku ñëw ba si nag ma xam ni yaa yaa yaa ñëw ba si lu ma ca war a wax ak yow dinaa ko wax ndax man woote ci dara waaye li ma xam lépp lépp lépp lépp waaw loolu moo ci gën a tuuti mais da nga wax léegi moom Ousmane waaw dara loo xam ne ma ump ci wàllu baatim ci baatin ci mm-hmm. mbiram du dama ci gis ba gis ci loo xamante ni nii dina dina dinaa ko dinaa leen ci ñamal dara. mooy. Mouhamadul Amine ne Sénégal yëpp dalal seen xel. ci mbiru Ousmane Sonko ci mbiru Ousmane Sonko. metti na lool waaye dinañu dem. Mhm. ba naan sëñ bi waxoon na ko. Ousmane Sonko di ngeen ko gis. mu génn ci bu yàggul dara. mais Ousmane Sonko est-ce que xam nga ni génnam du yomb li tax ñu yaakaar ko mooy Pastef dañ koo tas. kilifa yi nga xam ne ñoo nekkoon biir Pastef ŋànk ko sénégalais jox leen bopp di leen gëm Ngagne Demba daw na est-ce que yomb na ngir Ousmane Sonko ñu jàpp ñu ñu génne ko ndax ñu ko waroon a wàllu ñëpp tas nañ leen. Pastef mi ngi fi woon Ngagne Demba Touré mi ngi woon réew mi demagul woon fenn. waaw te teewul ñu jàpp Ousmane sonkoo dëgg la wala du dëgg. dëgg la. kon nag lay tax ñu bàyyi Ousmane Sonko yii yëpp bu ñu demee du maanaam mëntatee ñu bàyyi ko Ousmane dinañ ko bàyyi te la tax ñu koy bàyyi man du ma ko wax waaye di ngeen gis ñu bàyyi ko xat-xat yoo xamante ni. Mm-hmm. ak loo xam ni daanaka ëpp naa wax sax ci am réew ñëpp di ko dégg. Mouhamadul amin lu doy waar sa yéeme gis naa ko ci jëmm jooju ñuy wax Ousmane. jëmmi Ousmane Sow waaw ndax moom itam. waaw suñ borom dimbali na ko lool. Mm-hmm. waaye làmmin da koo jiitu. maara day taali. Lamine da koo jiitu lool. dina am mbir moo xam ni dina ñëw ci moom moo xam ni. Mm-hmm. du gënal soppe mi dara dara dara dara dara dara dara. ko nag. suñu réew mi ni mu demee. waaw ak bañ a yëkkati dënn yi. Mhm. ak rëccal rëccal fit yi ndax daa am ak njaboot. waaw kon ci digg bi laay jaar. waaye lu ñu man mhm. jóg ci nañ ko def. waaye est-ce que xam nga ni ñi waroon a jug ci Ousmane Sonko mooy jeunesse bi te nee nañ tekk tekkaaral est-ce que du daa am lu leen def wala sax daa am lu xew loo xamante ni ñun ñi nekk ci wàllum ci ci ci zahir gi nii mënuñ koo xam. waa loolu itam du ci ñàkk ndax lépp loo xamante ni gis nga mu am ci am réew. wala mu am ci nit xamal ni du saaxir du hasard itam dafa am lu ko jiitu mm-hmm. waaye nag lépp loo xam ne itam dañ koy def ba nit ñi mën a dal loolu man ànd naa ci fa tabaarakallaa ndax Ousmane ci boppam dafay nit koo xam ni mm-hmm. nit ku baax la man yàgg naa ko wax mm-hmm. gisuma it ku ko gën te it li mu bëgg say bo ngeen dal ci seenum xel waaye moo dugg ci wàllum politique yéen gis ngeen Abdoulaye Wade lim daj maanaam lii dafa bees rek li ñuy wax naan gën a bees le moo fi am waaye gën a metti le amu fi waaw Abdoulaye Wade lim daj maanaam ci wàllum politique. Mhm. digganteem ak ñi ko seqaloon. Mhm. liñ ko tëj ak lim daj. Mhm. kii daju ko. dafa loo xam ni lu toll ni am réew dafa ndawut. boo ko bëggee jiite. waaw faw ay natt yu bari di ñëw ceew. waaye nag lépp loo xamante ni mi ngi am. te maanaam xeex di ci bokk ay rayante di ci bokk. loolu mënoon naa ñàkk. mais ndax ndax jàmm ak dal. mooy tax am réew am jàmm mooy tax itam am réew jëm ca kanam. mooy tax itam askan wi ak itam kilifa yi. ñi nga xam ni ñooy wa ñooy waajur yi seeni xel mën a dal mhm. waaye xeex guddi xeex bëccëg loolu kenn ñaanu ko cab réew fa tabaarakallah mais am na loo xamante ni tamit seetlu nañ ko mooy tekk tekkaaralu kilifa diine yi kilifa diine yi tey jaakaar naa ñoom sax Macky Sall jox na leen cër goo xamante ni xëy na waaw fa tabaarakallah da ko wax mooy tekk tekkaaru kilifa diine yi defe naa kilifa diine yi nga wax ndeem ñoom ay kilifa lañu rekk ci diine xam nañ li leen diine wax xam nañ itam kan moo leen def la ñu doon muy seen borom. Mhm. subhaanahu tabaaraka wa taala di suñ borom ñun ñëpp. comme ñoom ay kilifa lañ yu màgg a màgg lañ te ci diine lañ ko doon ñoom defe naa la ñu war a def ak lañu ñu war a loolu kenn du leen ko wax ñoom xamal leen ko seen bopp. waaye ñun ñoo ngi ñaan bu baax jàmm am Sénégal. macha allah sëñ bi. bu Bougane Gueye Dany awa Baba Thiam. dama leen a waxoon fan yee ci ginnaaw. waaw xëy na di nga ko fàtte sax ndax yow li nga sa liggéey da la ëpp doole. Mhm. fa tabarakallah waaye dina jël wax ji wanaat la ko ba nga gis ko. Mhm. ne la fan yu néew di nga dégg coow lu rëy te nag ci réseaux sociaux yi lay ëppee. ak ma koo fàttaliku. <laughs> ak waxoon naa la ko ni la waaw ca saal ba laa la ko waxoon man la ca man la man la man la defe naa saal ba laa ko waxee woon wala ca àll ba ñaari benn la ci. bu ko defee ma ne la woon coow dina am. Mhm. lu rëy rëy rëy. Mhm. junjoon naa ko ne te la ci ci kilifa lay doon te ci mbirum jigéen lay doon. man maa ngi ko sax ni nga ko waxee tey waaw kay ma ngoog tey itam ci réseaux sociaux yi lay gën a yaatoo. Mm-hmm. te coow loolu dina bari. ba ma koy wax du dara lu may lii ak la nga xam ni mi ngi ci kanam te ñëwagul. am na lu ñëwagul am na lu ñëwagul te mi ngi ci kanam lii ak lu mel nii rek. a na ko maanaam li ma la mën a xamal mooy man sama borom dafa may wan. boo gisee nag samay wax bariwut lool lool lool lool mm-hmm. du ma du ma gis mbir xew. yàlla wanu ma ci dara ma toog ñeme sama boroom toog jàkkaarloo nit ñi naan leen nangam gis naa ko te gisuma ko ngir àddina loolu yaa addina jaralu ma ko man waaye nag lu ma suñu borom wan rusuma taxaw itam wax ko coow lii bari na lool ci kilifa goo xam ne ci jigéen lay doon te it dina fës lool ci réseaux sociaux yi lu mel nii moo taxoon ma la ko wax ak loo xam ni des na mi ngi ci kanam waxoon naa la ko nag ci accident yi mhm. te gisoon nañ am na luñ ci gis comme nag yàlla def na ni tey ñi ngi ci oto oto bii ñu nekk nu mu tudd sax limousine limousine ci lañ ne muy wër ak ñun ci Dubaay mhm. tabarakallah màggal gi jub si na oto yi dañuy dem ak ñëw wa hab lanaa yaqiina wa tamkina wa xallidul wusula wa sukkuna wa hab lanaa xismata yaa wahaabu yaa ma lahul iyaabu wa thahaabu bayit yooyu Mouhamadul Amin na ngeen ko bind ci écran bi waaw képp koo xam ne yéegati nga ci oto mhm. di dem mbaa ngay ñëw mhm. na nga ko jàng foo mën a jëm fu mu sori sori di nga àgg ci jàmm te doo def benn jéey ci yoon wi ndax màggal gi dafa jub si loolu maa ngi koy wax fa tabaaraka waa koy bugaan ma wax la ne la coow yi dama ko gisoon bu yàgg. Mhm. te waxoon naa ko. Mhm. te bu fekkee mi ngi may dégg nag. Mhm. wala lu bokk ci moom mi ngi may dégg. nañ gaaw. jóg ci seen bopp bu baax du ma woote nag. xaw ma nag fan lay dem ak kan lan lan lay jóg. waaye na jóg ci boppam. moom bugaan waaw moom bugaan. ndax bu dul loolu euh, gàcce mën naa am. te te loolu maanaam ma dara jaru ko. Ah, li dara jarul mooy coow li nga xamante ni xëpp nañ ko ci bànnaya feccikat la nekkoon ci Sidi Diop jékki-jékki dem ci waali coow li jug ci moom dafa wor dafa nangam sangam te gëstuwuñ ba ci suuf xam li xam li xew. loolu nu mu demee dëgg-dëgg. feccikat bu nekkoon ci Sidi Diop. Mm-hmm. jékki-jékki dem ca waali Seck. Mm-hmm. coow li jug nag ñi naan dafa wor Sidi Diop dafa nangam sangam dafa nangam sangam te ba léegi gisuñ waali Seck àddu ci ne ñëw na ci man dëgg la wala nangam sangam mais gis nañ daal ba mu waali xëyee may na ko oto mu jël oto bi jox ko ay waajuram ah da doon nekk ci kenn kii di ko feccal nga wax. mu jigi mu baax ko dem ca moroom ja waaw de xanaa intérêt boppam la kenn maanaam waali moo ko jox oto. waaw. Hmm. man yëguma ko woon waaye loolu moom xanaa damaa jàpp ni fam fam mujje mhm. eh, da ko dafa gën a gis boppam fam njëkkee rek. Mhm. ndax wolof yi dañuy wax ni boo boo nobo nobandoo ñaar. xoolal ka nga mujjee nopp. ndax bu fekkoon ni ku njëkk ko nopp nga ko dëgg. Mhm. ku mujj ki du du du nekk ci sa. yaa ngi dugg ci borom ñaari jabar yi dañuy am oh, dañuy kaas tabarakallah <laughs> waaw loolu bañ koy wax nag loolu loolu taxut. waaw waaye lu mel noonu taxut. ndax loolu waxi wolof la rek ab mhm. junj la. Mhm. waaye léeg-léeg itam nit dina takk nit. waaw mujj léeg-léeg sax nit takk nit nobbu ko loolu. sëñ bi est-ce que xam nga ni fii la ñuy jaar tàggatoo ndax euh, ñi ngi gaare ci limousine bi te gaare bi mi nga bëgg a yàgg. chauffeur beeg ñëpp wàcc nañ di la xaar ndax euh, fi nga jëm ñu bëri ñu ngi fa di la xaar itam di ay kilifa di ay ñoo xamante ni tabaarakallaahu ñu ngi fa di la xaar moo tax sax ñun gis nga ñu xaw a sañse waale nii sax ànd ak ànd ak yow rek ngir ngir ci sa barke loolu daal la ñu bëgg moo tax dañ lay bàyyi rek nga tàggu mbokki internet yi ñu daal di dem ziar gaa yi te daal di dikkaat incha allahu incha allahu tey nag yàlla defoon na ñu nekk fii fi ardi Dubaay doon fi waxtaan ak yéen waxtaan wii ngeen di dégg mm-hmm. di sant yàlla bu baax a baax a baax ci may yu mag yi nga xam ne mi ngi ñu koy dottil waxtu wu ne mm-hmm. di ñaanal itam Sénégal jàmm am fa mm-hmm. di wax ñëpp rawatina ndaw ñi nañ gëm seen bopp bu baax a baax a baax a baax te xam ni nit ki li fekk sa karaw mi ngi ñuul sam xel mi ngi des ak yow yaa ngi am ak wér amut loo mënta am ci àddina buñ leen jombale seen bopp dara bu bu leen bëgg àddina itam wala ngeen di yàkkamti ba tax ngeen di dugg ci loo xam ne da ngeen di lor seen bopp lor seen waajur na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax mbokki sëriñ si nga xam ne itam ñoo nekk di ñaan ci waar wii ñoom itam nañu jàppante def seen bopp ñuy benn te ñu wàññi itam li nga xamante ni mooy dox seen digganteeg am ijaaba ndax nit jox la alal ju dul jeex nga tëdd di nelaw mu tëdd di nelaw defe na aaj aaju jooju dana yeex dana yeex a faju te bu boobaa yaakaar naan yaa ko yoreel aq ju mag ñi ngi fii fi Dubaay nag di ko defee ci euh,